di cadre ko Ousmane Sonko di téye ci oto bi ne ci wetam. génn dem de xeex ak ay nit. moo tax ba mu ko déggee rek sama xel ne takk la nga waxoon léegi yow. ndax da ngaa xamoon ni ni nga yëf yi. noonu la war a demee wala ban gis-gis nga am ci ginnaaw bi àtte bi déggee loolu nga dégg li wax. non xam nga fàttali nag nee nañ daal deux ans euh, de prison la ñu leen di euh, la procureur sàkku. ak benn at boo xam ci leen moom la ñuy tëdd. xam nga 14 régions 5 continents mënut nekk samay mbagg ma ma doon koo xamante ni information yi ni ñu ko nit ñi jotee di ñaanga noonu laa jotee information. mais waaw mais information du ma ko jot nga wax ma ko ma waxee ko même ni nga ma ko waxee il faut ma xaw a yàq kii tuuti yàq ko tuuti. mais information yi ni ma koy ni ko gars jotee noonu laa koy jotee ndax it bu fekkee ni man bañu ma ñu jàpp ci garde corps yi. <laughs> Eh, eh, eh, day sëb. laa bëgg gàtt gàtt. la ba yàq ba yàq sa sa sa kii ndam li nga am. ni ko gars yi jotee naa koy jotee. yow àtte bu amul la limousine wax. waaw waaw kenn wax dëgg yàlla nag da a wax merci information yi nga. la ko wax naa la ko. voilà noonu la demee en tout cas daal. kon ngaa jàppoon daal nit mën na garder dem di xeex. xam nga tey jii nee la ay militant yoo doon xeex militant nag xam nañ militant lay xeexal. Hmm. Hmm. ndax ful Youssou Ndour ak Mame Mbaye Niang bi ñu koy karkaran yof maa hmm. mais laataa ñi xeexal xeex na ñoom ñii ba ñoom ba dégg ñoom Youssou Ndour dëpp nañ te ñi xeex ñi ngi xeex. Ah, ba gàddu ko rawale ji gars yi. dëpp nañ ba ñibbi de bay daw. ñii di xeex ñii war ñii xeex maam ñi àndoon Youssou Ndour ak maam Baye naa ñi ngi xeex ak ñu ne waa waa yoo fi te ñee daw nañ bu yàgg. Ah. ak seen i garde corps maanaam garde corps day mat exemple lu mat juróom fukki garde corps dina jiitu nga xam ne dañuy séen sax dañuy séen fa ñee nekk mais ña ña ngay séen boo ñëwee jàpp sa ñooñu neen yéen a doon xeex loolu day day waar mais mënoon nañoo jàpp sa ñi jiitu woon di xeex daal leen xeex bi ko waral. Mm-hmm. mais dañ nangul seen liggéey en tout cas ngi ñaan. yërmande am ci réew mi. waaw est-ce que jàpp def nañ seen liggéey parce que am na ko bàyyi na ko mu bi nee nañ ko defoo dara. Hmm. ñee ñu leen toog leen xaar la ah, xam nga bi ñu nee jàpp nañ ko bokk ci euh, waa beneen wàll gi laal la woon xel ñu bëgg a téye. waaw ndax tey ñii dañ naan tëddeewuñ jaaxaana. mais am na ku mais déet nga bàyyi kooku sax kiiw bu même bu ñu ci téyewoon kenn sax kiiw hmm. en tout euh, sant yàlla ginnaaw am na ku jàpp donte daanu kee ndax kee wax dëgg yàlla daan bu mënta yem ak bii ndax moom cuukeet baak fépp ñoo ngi ko bandaas kon daan bi ñu ko daan mënta yem ak boo xamee ko xamee bandaas ñu ko dañ koo gañee buñ gañee nag xëy na moo tax daan bi ndaw maa dañ koo gañee doonte nee nañu moo attaqué ndax moo kii mais daal sant yàlla rek yal na am si réew mi amiin xam naa man de du ma ni ñoo def ak defuñu de waaye limousine mi ma gisoon fii ci wàllu fajiri xam naa ni waa ji ñaan dañ koo duma bu dankoon ab kurbe ñu ko tépp waa ji yaakaar naa heure bi fuñ ko suul lañuy wax waaye <laughs> waaye duñu wax ni fuñ ko kii man nag sama yoon ci ku dóor ak ku dóor waaye daal li ma si néew a gis bu tànkee kur nañ dóor ko kenn <laughs> fuñ ko suul la ñuy wax <laughs> alaaji noo gisee àtte procureur bi procureur bi àtte na bopp sàkku na ñaari ati kaso ak ah. benn bu ñuy bu ñuy tëdd waaye verdict bi justice bi incha allah dina ko joxe kii joxee ko waaw bi ñu jëlee nit ñi di laaj ndax xàmme nga leen hmm. ñu ne dañuy jël rek kenn comme jël asan rek hmm. daal di koy def ndax xàmme nga ñu ne waaw yooyu loolu euh, nekk na loo xamante ni kii parce que hmm. tey bu ko defee nga xam bu waa ji defee erreur ñu mën a xam ni kat xàmmewu leen mais boo tegee benn nit dañ ne ndax kii la wala du kii ah, waaw xam nga day yomb pour waa ji wax ne waa moom la. Hmm. donc euh, ah. mais bu ñu waroon ay nit yoo xamante ni bii te surtout sax bu fekkee ne bii dañ ay garde corps ñu xam ne am gabari ñu waroon ñeneen ñu am ay gabari ñoo xamante ne dañuy ñëw taxaw njool ñu xool. Hmm. dañuy ñëw te xàmme dañuy def seen kanam comprendre boobaa dinañ mën a wax ndax xàmme nañ wala xàmme wu parce que tamit leneen loolu mooy bi fi Assane defee tamit euh, kii boobu. analyse boobu. nga yëg ni parce que garde corps moom ki sës ci yow la. Mm-hmm. waaw pour mu bàyyi dafa dem di xeex yi maanaam bu coow jubee euh, day xam maa ngi lay wax ne la ne la garde corps. Mm-hmm. Euh, daa war a sut ki muy garde waaw parce que garde corps bu fekkente ni bi ah. a sut mën nañ koo xaaj. wala da nga naa ko sëkkal boog. xam nga yooyu comme daal dafa waaw am na ma gisoon ba xam ne daa waaf. waaw gars yi daal di waaf. naa laa yaakaar ne aw xeer day ñëw. li <laughs> mu waatee mi ngi toll si biiru waa waaw xam nga euh, pour ñooñu nan lañ mën a bàyyee kii bi dem di xeex yi. loolu moom doy na waar. waaye naa xanaa kon ñoom dañoo ñëwoon ba sës. ci Ousmane Sonko waaw loolu moom xanaa loolu mooy kii. moo tax bu ñëwoon jàpp nañ yeneen booy yu doon xeex ak ñoom. Mm-hmm. ñooñu moom bu boobaa dinañ ñaar ah, kii mais bu boobaa jàpp naa ni du am bës. du mu am. parce que jàpp nañ garde corps Ousmane yi wala nga ne garde corps Ousmane yi ñoo dóor def naa loolu mooy ëpp xorom que nga ne booy booy yi ñoo ma dóor comprendre nga dóor yi sax da yëg ni rek euh, boo defu daal est ce ay militants rek loolu ñoo ko duma <laughs> parce que <laughs> parce que li mu nekk les dóor yi yeeg fi nga xam noonu la yëf demee mm-hmm. waaw est bu doon garde corps yi li nga ci wax noonu du jàpp mm-hmm. ne est mbaa duñ laaj fan lañ leen denc mm-hmm. ñi ñu <laughs> nga garde corps yi moom wax dëgg fa yàlla macha allah euh, wax dëgg fa yàlla kii nañ am nañ doole te it euh, lañ mais en daal lu mu ci mën a doon ñu xaar dogal ba léegi léegi est-ce que jàppoo ni ba léegi ci wàllu wàññi seen doole ba tey man na parce que bu ñu nee suuf si ba tax ba tey wàññi nañ seen doole bu ñu doon kii le ñu ni suuf si six mois suuf si wala un ba léegi gars yi dañoo ne ci suuf si maanaam dañuy xam fi ñuy taxaw waaw ñu wàññi seen doole est-ce que jàppoo ni ba léegi suuf si beet am na yu muy wàññi waaw mais xam nga li leen kii waxoon li leen Sonko waxoon ba même buy am na muy wàññi tamit mais jàpp man dina wàññi dara ci kaaraange Ousmane Sonko parce que li mu waxoon soo ko fi mu toll am na ñoo xamante ne bi pare nañ pour daw garder ko te laajuñu lenn. Mm-hmm. liñ bëgg rek mooy nañu ko aar am na xam ko maîtriser parce que ba mu ah commencé ba mu ne Sonko ba léegi. Mm-hmm. juróom ñoo ko gënoon jege. waaw ko waaw ñooñu jege nañ ko. waaw maîtriser ko waaw jege nañ ko moom wax dëgg fa yàlla yàgg nañoo moom. waaw euh, depuis que nga leen di gis ba nga ni ñoom ngay gis ñoo koy wër. Mm-hmm. donc mais tamit terewul ba léegi gis naa waa yu njool yoo xam ne ñu njool ñoo xam ne li ña kii tey man ma gisee dama ne waa man gars yi dañ leen a bàyyi waat wala soo fu fu muy jëlee gars fu ñuy jógee. waaw fan la ñuy jógee donc. <laughs> ay géant lañ de. donc loolu. am na solo moo tax man xam naa sax danaa wut benn garde corps boo xam ne léeg mu najal ma asan. non ñett yi may jox benn ndax dañ may toog mooy gis nga gars yi ay géant lañ Sonko bu nekkee seen biir comme comme. <laughs> <laughs> Sonko gàtt la. Hmm. te yàlla baax ñu noonu ma jox la benn information euh, Bamba Fall nee nañ wax ngoon 17h après mu ah, <laughs> cere Fall kay li muy wax cere Fall lu lu muy wax kay li wax xam nga xam nga seega damay wax te yow li wax laata ngay def di ci xam nañ ko yow rek yaa xamut ni nit ñi xam nañ li wax lu muy wax da nga ko xam loolu xam naa daal ci kaw Sonko. dina daal ci kaw Sonko dina dëggal ah, kërëb kërëb kenn mënu ko kii président day loolu yooyu lay def loolu rek lay wax c'est li muy wax ji jër sa wax. ah ci loolu lay wax euh, du bàyyil ba ngoon. waaw d'accord amul leneen lu kii. léegi li Assane moom ngay alaaji il faut nga wax man mu ngeen gindi sama xel mu leen fee nekk xam ab information te xaw ma ko. Hmm? affaire baara bi naan da watu yaag suñ baara. Hmm. moom Sonko euh, moom day dem waaw déet Assane wax. non non mais nee na xam nga. Assane ah, mais da ngay dee Assane la ko waxee. fii boo fee nekk di junj da ngay wax lu mu leer lan la. lan la sëñ moo ko wax. lu mu wax moom moo ah. si àddina bi waxul Sénégal de si àddina bi si àddina bi. képp koo xamante ni wax nañ ma fu ñu masa gisee koo xamante ni dañ koo jiiñ yool mu def test ADN. Hmm. bu ñëwee buñ ma ko waxee. dinaa dem dugg APR dinaa wat Ousmane Sonko neer bu rëy. dugal ko si maalu oto bi yóbbu ko APR jébbal ko yoon. waaw moo ko wax ñu andil ko ko. léegi nag gars yi nee nañ bu ngir yàlla na taxaw wax ni dem naa APR dem fexe jàppi Ousmane Sonko. bu dee dafa dafa am. Ah? weesu na ah, ana vidéo bi ana vidéo ana gis na ko. ala bi laa ana vidéo bi. am na information bi daal. waaw mais du la jox man ma ko joxoon ma joxoon naa la ko keroog ba mu ne càpp ci ma. daal ko waaye buñ paree fii yónnee ma ko. non dafay sonné mu yónnee ko. ministère bi waaye buñ paree ma xool ko. incha allah kon ba suba jàmm. moom di si jàngat. pare ba baaxam gis ko gis na vidéo bi. gis naa ko ba mu ñëwee laa la ko baalaat. waaw mais baaxam gis naa ko léegi. xam nga li may balancé dafa bari. waaw léegi loolu loo si xalaat si waxtu beeg yóbbu. waaw waaye moom vidéo man gisaguma vidéo bi su ma léegi yónnee ma ko. mais da ngaa mën a balancer yéen may balancer yëpp mënu ma ko xool lépp bu ma ko doon xool connexion attanu ko. waaw wax am te yow da ba xam nga bu ma xamee ni da ngay loo xam ne xamoo li ca ne di ma déglu pour ma wax la li ca ne. booba laa moytu say balance. tey tamit bul bàyyi ba maanaam yàgg gars yi bu leen bu leen juum sëñ Baar wax na ci wax ji nee boo xam ne doom taxu koo jur maanaam exemple ñun doom jii kat son boo ko jur son bu ñu juruma ko. man man doom affaire yoon la wax. mais vidéo bi ñu la joxe affaire viol du doom. xaaral rek. ah damay laaj damay bañ nga dugg ci pax yow it yow amul. lu waay dugguma ci pax man dugguma ci pax de. Cheikh Bara dina jox doom la wala yoon. du vidéo de. walla ah si tribunal bi la waa ji taxaw ñu bind texte bi laal ko si kaw waa ji. dañ koo bind yaa ko liir kon yaa ko liir wala dañ ma koo liir. gaa yee ma ko jox. alors liñ bind la wala. gaa yow def naa gis nga sa waa ji la mu waxoon ne ngi nii léegi nag ñu ngi koy xaar ba. ah lu ñu bind la waaw bind. Test la bu bind on a boo la champs bi a texte daal la bu ñu bind waaye taxaw a tribunal bi ñu ngi def test ADN bi voilà. bind bi dañ koo wala. non bind la nii. Ah, bu bind moom waaye si bi la ban la waaye rew bi sax wax nañ ko ko xamante defal nañ ko. lepp am bind la. waaw lépp am bind la. Cheikh <laughs> Bara affaire <laughs> waaw baax na suñu baax na ñu ngi koy nuyu bu baax di ko di ko di ko di ko ziara ñu nuyu bu baax a baax ki nga xam ne mooy Munaas ak Maymuna Sow ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Faye ak Mouri. mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen seen YouTube KOTF TV international. ginaaw bi bàkk bi daanoo ñu fas yéene na jukkil kaawteef yi fi jot a ruuse ci kàllaamay wolof di la ñaan aussi nga dem abonné su fekkee abone ko te bul fàtte bés cloche de notification bi pour vidéo buñ dugal nga mën see jot